Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di amaat un réel plaisir di ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo gën a fës ci wàllum actualité bi ànd ceeg suñu invité bu am am solo ñu fas yéene waxtaanee nag ponk yu bare bare waaye dama ciy jukki benn rek mu daal di ëmb lépp muy wàllum assises yi nga xamante ni jotoon nañu ko tàmbali fële ca dialogue national bi nekkoon quatrième édition 2024 euh, tey jii nag ñu jébbal ko ki nga xamante ni moom mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu fas yéene ko recevoir daal di xool nag euh, yan mbir ak naka lay doxalee yooyu les réforme euh, jëmale ko ci modernisation de la justice au Sénégal donc tey ñu am mbégte contentement dalal fi ki nga xam ne moom mooy Abdou Karim kurum xàq muy Abdou Karim Gueye bokk ci mouvement nitu dëgg valeur kenn dootu ko présenté ti sénégalais bu ko defee moom mu nuyoo ñu tàmbali waxtaan bi yaakaar naa mbirum justice moom bu buñ ciy waxtaan moom dafay baax lool ñu invité ko bu ko defee mu waxaale ci li nga xam ne moom mooy xalaatam ndaxte dundu na ko c'est un ancien détenu mm. wala ex détenu donc Karim maa ngi lay nuy di la jaajëfal bu baax a baax. Euh, yàlla la maa lay maa lay ziar bu baax maa lay maa lay nuyu di la di rafetlu invitation bi euh, di nuyu mbokk internet ah di vraiment di rafetlu di di ñaan yàlla rek bañ fi wax lu ñuy xebe mm. lu ñu nit yu baax yi di xebe ah, di mm. ñaan yàlla ñuy wax yëpp ñu wax te yàlla rek tax ah, te mu tegu ci siraatal mustaqim yàlla nañu yàlla suturaal si loolu. amiin euh, je pense que li am solo rek mooy nit yi ñu wax. te di nekk ñun nit yi déglu. déglee mhm. xel dégloo xel te bañ a dégloo xol ñun aussi ñu waxee xel bañ a waxee xol. Mhm. Ah, mhm. euh, euh, assisté nañu li nga xam ne moom mooy dialogue bi. acteurs yi demoon ci. def ci liggéey bu am am solo. tey ñu jël conclusion yi jébbal ko njiitu réew mu Sénégal mu taxaw ne cette fois ci jàpp na ni li ñu ko jox. duñu ko ranger ci tiroir yi. donc mun nañu xaar li askan wi yëpp bëggoon ci justice bi. ginnaaw bi ñu jàppee ni rek dafa bëri ay rëq-rëq. waaw mhm. je pense que dama lay xam nga euh, d'abord euh, dama xam nga euh, man man laa dafa am man ma am tuuti problème parce que problème bi ma am mooy dafa am lu xew Sénégal loo xam ni dafa am fu mu jaar ba agsi fi mu agsi muy 60 ans yoo xamante ni Sénégal dañ ko perte Sénégal dañ ko tardé. Sénégal dañu ko nax politiquement Sénégal dañu ko wax lu dul dëgg Sénégal dañ ci dañ dañ ko dañ ci nekk ci nooteel impérialisme tubaab bi am ci mainmise ko est-ce que am mainmise suñu kaw comprendre ba mm-hmm. ñu yëngu ci ba sonn a chaque fois système bi di métamorphosé wu di taxaw yeneen taxawaay di fexe ba renforcer waat ay racinam soppali ko nekkaat maase waat ñu euh, mu dal ñu ci parce que souvent yàgg naa ko wax ma ni ma ni Senghor tubaab bi ñoo ñu ko forcé ma ni Senghor moom ci boobu mi ñu tubaab bi forcé moom moo ñu forcé Abdou Diouf ma ne Abdoulaye Wade moom moo ñu forcé boppam 27 ans d'opposition ma ne Macky Sall moom da doon yoot nax ñu ba toog ci pouvoir bi ma ne ñii nag ne fii ci pouvoir bi ñii ñun ñoo leen tànnal suñu bopp mhm. xam nga loolu dafa am Sénégal mi ngi soog am ci jàngat da ngay jàpp ni mi ngi soog am moment bu politiquement peuple sénégalais bi conscient a jug taxaw ci benn mbir. maanaam une véritable alternance. waaw bon ci ci ay wax quoi ci ay di mhm. comprendre nga. Mhm. bi ñuy jóg dañ jugoon pour une révolution benn alternance boo xam day taxaw tu vois ce que je veux dire donc maintenant pour président bi taxaw ne li ngeen ma jox nii du dem ci suufu taa pour man loolu wax boobu wax bu yàqu la quoi tu vois ce que je veux dire. pour man le président n'a pas besoin de dire ça en réalité parce que ñun sama xalaat laa wax dama ni man pour man le président n'a pas besoin de dire ça. Mm-hmm. parce que man gisuma lu tax moom mu war a a xalaat. loolu noonu li ngeen ma jox nii du yem si du yem si kii du ma ko def ci suuf taal du ma koy appliqué. Mhm. en réalité lan moo ko fal bu fekkee ko kon ni ma ko waxee. Mhm. pour man wax amul place foofu. foofu wax amul fa place. xam nga lan moo ci biir rassurer si lan en réalité ñun ni ñuy assurer xam nga mooy lan mooy maanaam wax wax wax moo doy dañ toll si jëf. ok la lan la gars yi bu ñu wax naan. c'est trop tôt da ngeen teel a teg pression peut-être pouvoir bi da ngeen teel a wax yooyu man des fois ça me fait xam nga lu tax. Mhm. parce que ñun man xoolewuma à partir de euh, trois mois yi pouvoir bi toog fii man damay xool à part moment bi Sénégalais yi conscient wee ba def soulèvement di jug bay dee pour affaire yi changer. Mhm. ba ñu def ay ay manifestations di communication di loolu mi ngi commencé depuis 2012 bi ñu bi Sénégalais yi commencé jug di xeex donc. peuple bi ñu am il faut ñu comprendre peuple maturité bi peuple am ak vitesse bi peuple bi di daw parce que affaire léegi dafa changé le monde a beaucoup changé. Mm-hmm. vitesse bi cest à ak léegi internet communication bi loo xew rek démarche bu président bi def fu mu dem lu mu wax rek ni muy virale ci internet bi. Mm-hmm. lan moo waral lii gars yi suscite le débat dañ pose dañuy pose on se en réalité lan moo tax lii. loolu dafa tax vitesse bi léegi man dama ma ne génération internet kenn waru ko nax warul ñàkk xam dara dafa war a xam lépp. loolu moo tax donc pour man. man je vois pas je l'utilité de dire li ngeen ma jox nii du dem ci suufu table ji man gisuma ko gisuma wax boobu noonu xam nga laa gëm man. Mhm. mooy amul wax. teg teg gi la mais euh, yi ñu nekk di posé. Mhm. jàpp nga ni c'est des actes par rapport ak euh, c'est li ñu fi jot a nemmeeku ci li nga xamante ni moom mooy moom seen doxalin. kon yam acte par exemple. non je veux bi ñu ñëwee au pouvoir ak léegi. waaw yan ak la. ci wàllu mbay mi li ñu ci def. mbay mi instant dañ ci def def nañ ci dara nii. Ah, vas-y tu m'expliques tu me dis des faits dama ay faits rek xam nga euh, bi ñu ñëwee dañu wàññi jiw gi. Mhm. wàññi nañ denrée première nécessité yi. ban denrée première nécessité lañu wàññi. mooy ceeb beeg diwliñ beeg mburu bi. mais bu fekkente ni ñu bëri am na jàpp nañ ne peut-être wàññi bi. Mhm. Euh, nekkul wàññi bu tax ñu naan wàññi. xëy na ku nekk ak sa gis-gis. mais loolu gis nañ ne euh, am na lu ñu teg la lu am. ok donc mënuñu énumérer lépp en fait. c'est juste que dama bëgg a yow sa e, e, e, analyse par rapport ak ci côté boobu. c'est sama problème man man sama problème xam nga la man man man sama problème d'abord mooy man dama bëgg man man a chaque fois sooy wax ak Sénégalais yi nga wax leen li fi ne. Mhm. gis moo ko la falee li mën a ne nga wax leen li mën a ne lu mënul nekk wax leen ko nga avancé te li nga digé woon ak ñoom soo ko mënul. soo demee ba toog ci pouvoir bi nga dem ba gis ne yow kat lii nga yaa ko digoon mais mënoo ko il faut avoir le courage de le dire nga ne mënuma lii maa ko waxoon mais mënuma ko par exemple bu ñu ñëwee ci euh, pain bi njëgu mburu bi ñu ne dañ ko wàññi mais wàññi mburu bi mburu bi wàññi wuñ ko mburu bi la ñu wàññi michu pain bi cent euh, cent vingt cinq grammes la woon léegi moom michu bi mi ngi cent vingt grammes am cent quinze grammes donc kon wàññi wuñu njëgu mburu bi mburu bi la ñu wàññi donc léegi 120 grammes xaw ma 115 grammes la ñuy jaayee 150 francs boo xoolee mburu bi sax moo dafa gën a cher man man dama man xam nga mooy sama problème man man man dama doon xeex pour une man dama dama gëmoon nii man ñun dañuy nekk ci révolution quoi parce que li fi jaar ci expérience ci xeex ci fi ñu jaar yëpp ak fi ñu jóge ba ak si fii man loolu laa gëm ni dama gëmoon ni c'est une révolution te xam nga luy révolution mhm. mooy une rupture totale parce que euh, man dama gis politique bi fi nekkoon quoi dañu xaw du ñu ay mag mais xaw nañu fekkee tuuti tu que je dire. Mm-hmm. Abdou Diouf am na lu ñu ci for Abdoulaye Wade daanaka tëj nañu xeex nañu ak moom Macky Sall dañoo xeex ak moom ba sonn ñëpp xam nañ ko après pour teg fi lii quoi te discours boobu nga xam moo fi nekkoon ci politique ancienne bi muy politique classique bi ñoom bi ñu ñëwee xam nañ ñoom lan moo leen eggale fi ñu egg donc kon man je ma dis ni am na loo xamante ni su amee. ñoom war nañ comprendre ni ñun li ñuy xaar waroon na sax dépassé foofu noonu. waaw ah, maanaam li nit ñi di xaar dépassé na li ñu. commencé du ay pour man du ay xoola du ay denrée du ay wàññi ay denrée de première nécessité. Mhm. yooyu noonu gis nga en réalité sénégalais yi amour bi ñu am si ñoom romb na yooyu sax. Mhm. xam nga sénégalais dafa nekk koo xam ne bëggul gàcce te dafa xeex sénégalais dañoo xeex tey bu ceeb bi demoon sax ba kilo ceeb bu demoon ba yenn somm yi sax mburu bi dem ba yenn somm yi en réalité ñoom li ñu soxla mooy ñoom li ñu di rupture rek yi affaire bi yomb day metti est-ce que tu vois ce que je veux dire. man dama doon xaar benn rupture quoi rupture totale laa la wax man révolution laa la wax quoi. lu mhm. révolution xam nga la mooy révolution mooy rupture quoi mooy loo xamante ni. xam naa fi nga bëgg voilà man loolu laa doon xaar man xaaruma woon que que pour régime bi su fi toogee ñoom dañuy jël ay ay ay ay ay ay ay subvention wala ay ay ay ay ay prêt banque mondiale FMI quoi di jël xaar bay jël ay eurobond man xaar xaaruma woon loolu. ok est-ce que tu ñu ñëw def consommer local boo xamante ni. Ousmane Sonko bayre bi ko yàlla may ak idéologie parti panafricaniste bi mu fekk ñu koy def mu ñëw fekk suñu si man ma doon xaar mu ñëw moom ci boppam sax day jël RTS wàcc ci mbedd bi ne tey fondé la ñuy reere ñëpp ñëpp kon Sénégal ñu bëri c'est-à-dire yàlla may na ko loolu quoi dem ci benn jaaykatu fondé expliqué dafay affaire c'est-à-dire indi Sénégal quoi en réalité xam ne ñu dund bay dundee boo xam day commencé d'abord ci révolution bi yow tu peux pas faire benn train de vie wala benn style dund boo xamante ni man xaaruma ko woon ci Ousmane comme lan je pas après xel moo yeggali néew ma si détails yi quoi. d'accord tu vois xaaruma ko woon mais dama bëgg en fait li ngay wax aussi mu leer. parce que boo waxee nga ne bay dundee ainsi de suite. mais bay dundee ça demande des moyens. dëgg la de le faire. dëgg la xam nga bay bi ngay bay semence ak engrais day ñëw. dëgg bu wér matériel bi nga koy defee. dëgg la matériel agricole bi. dëgg la nga ne bay dundee. waaw mais xam nga dafa am luy commencé loolu. par exemple li li nga xam ne moom moo dem ci cadre commerçant yi ak ñoom par exemple ci wàllu denrée yi. Mhm. da nga ciy wax commerçant mu ne la ñoom dañu defoon stock. Mhm. te ñoom bi ñuy ñëw au pouvoir fekk na peut-être stock boobu jeexagul. donc y a des mécanismes yoo xamante ni dafa daje. te loolu foog ñu ut ci ay solution d'abord balaa ñu dem ci consommation. locale c'est que il faut il faut xam nga pouvoir bu ñu la ko joxee yow da nga ñëw ni man mën naa jox leen ma. mën naa def nangam ak nangam l'état a tous les pouvoirs. ok tout faire man loolu laa gëm man damaa gëm ni réew. ak lu munti xew. no dégg nga dañ ma la dégg ma expliqué la xoolal. Mhm. réew mais gis nga Poutine ni mu doxalee ak ak ses ses les ses ses borom la ak seen seen seen bailleurs ak seen seen liggéeykat yeeg noonu. Mhm. c'est-à-dire lu ma xalaat en réalité les grandes entreprises yu mag yooyu noonu ak commerçant mooy euh, euh, euh, commerçant yu mag yeeg c'est-à-dire xam nga lan mooy problème bi. Mhm. mooy état lu peuple bi mooy moo moo ko war a doxal. moom mooy dañu def choix pour jëlee fi li fi nekkoon def rupture totale def rupture bokk na ci commerçant yi nga xam dañuy dundee askan wi bu ñu jëndee seen par exemple boo jëndee une tonne boo xam ni ceeb la nga jëndee ko prix bi su wàññee ko xam nga nga ni noo yow doo wàññi sa ceeb te som parce que prix bi nga ko jëndee la mais prix bi su yéegee yow li nga jënd si stock bi da nga koy yéegal da koy jaay prix bu yéeg boobu loolu arnaque la te ñoom xam nañ ko lan mooy rôle lu si loolu cest à la léegi organisation boo nga xam moo ci war am ba nga xamante ni ñoom les les les les commerçants la du ñu yàpp sénégalais yi quoi ñu état dana dañuy wàññi ñu wàññi ko par force by force askan wi mënuñu xeex di xeex ba pare fal la ba pare yow li nga war a def askan wi ne di la ko xeexal loolu mënul nekk yow ti a les moyens on t'a donné les moyens yooyu instruments yi nga yor da ngay da ngay créer organisation ay kii yoo xam ne sëñ yoo xam ne dañuy chargé wu si loolu dem pri prix bi prix bi fan la toll imposer leen ñu wàññi ñu wàññi ñu wàññi euh, denrée bi c' est que man loolu laa gëm man man gëmu yeneen yi gars yi wax ne man gëmu ko. d' accord alors tu vois est ce que comprendre bu la ma expliqué. Mm-hmm. man loolu laa gëm man maa gëm ne état dafa war a wàññi loxo gars yi imposer parce que foofu la parce que ñii dañu doon xeex pour parce que dañu doon xeex pour dindi fi li fi nekkoon. Mm-hmm. pour xeex pour dindi fi li fi nag mooy ñi toog ci pouvoir bi ñoom ñu mën a am tous les éléments qu'il faut organiser ay teg ay organisation yoo xamante ni teg ay kuréel yoo xam dañuy chargé wu ci lépp loo xam ne peuple bi soxla na ko léegi nag maintenant bu fekkee ni euh, mënuñu dund ñun sans sans ay prêt banque banque mondiale mënuñu dund sans tubaab yi mënuñu dund te gis boo demee ba gis ni kat ñun mënuñu dund sans loolu mais il faut avoir le courage de le wax ko ne gaan ñun kat ñoo waxoon lii mais mënatuñ ko. parce que man gis naa ay vidéo yu taay bataay yoo xam ñoom bi ñuy campagne dañoon taxaw naan ay euh, ay banque ay leb Sénégal leb naa leba leb ba bor moom su ma ñëwee day dañ def naa lii su ma ñëwee nangam nangam nangam man loolu gis naa ah bor yi ñu ngi koy fay de. non dégg nga damay loolu am na wala amul c'est du la la wax mais en bor booy fay te lebaat bor banque FMI lebaluñu joxuñu xaalis ay euro mooy bërki dem ah. Mm-hmm. j'ai posé une question. Mm-hmm. FMI bërki dem lebaluñu xaalis. effectivement léegi kon ban bor moo fi fayee ko fi yow ku ne xam nga ni banque mondiale xaalis bi ñuy lebal daf lay abal ay bët ku lay jox looy dundee xoola moo lay wax fi ngay xool ñun xam nañ ni monde bi ni muy doxee niveau niveau euro boobu noonu àdduna bi ni muy doxee banque mondiale prêt yi muy def yi muy lay defal dafa lool loolu moo lay mooy doxal sa temps. Mm-hmm. dafa am buy dox ci na bi yëpp boo ci bëggee gëm sa bopp doxalin sa bopp du mun nekk. Mm-hmm. loolu laa la moom je pense que xam nga ko léegi ñun li ñuy xeex li ñu doon xeex di rey suñu bopp di wàcc ci mbedd bi dañoo bëggoon moom suñu bopp d'abord mooy kitoo tàqalikoo ak xool impérialiste yi mooy tax moom suñu bopp indépendant dañoo bëggoon. tubaab yi jëlee fi armée française te du am xaaral ma ñëw comprendre nga teg pression tubaab yi teg pression entreprise française yi canal canal plus a ngi nii canal plus canal euh, plus bii nii. 35 hmm. ans la fi def mosul fay impôt. xam yooyu laay wax quoi te gis nga ba tey ñaata yoon lañ tëj wal fajiri ndax ay nga dégg journaliste tey yëpp ñeen teg pression ndax affaire impôt donc loolu wax man dama am problème yooyu problème yooyu laa am man dama ni man dama xalaatoon dañuy woo sénégalais yi ñoom ñëpp ne leen réew mi day metti lii day cher ndax kat lépp loo xam ne ñu doon jógee bitim réew dañ koy arrêté ku am sa juróomi dërëm ku am na sa fukki dërëm ñëw leen ñu ànd ñun ñëpp ñu dem songu réew mi defar ndoo ko suñu bopp Thomas Sankara a réussi ça c'est que ñun nax parce que Thomas Sankara moo ñu jàng révolution Thomas Sankara a réussi réussi ça ci 4 ans Thomas Sankara def autosuffisance alimentaire mu def ko Burkina Faso ñuy bay di dundee di sol consommer local Burkina bay mu exiger ci taxes yi kenn du sol lu dul luñ produire ko euh, Burkina Faso Thomas Sankara 4 ans la ko def réussir ko tubaab bi xam ne kii day avancé day réussir ñu rey ko parce que xam nañ day réussir boobu y avait dañuy négocier man gëw ma loolu. man loolu wax quoi dama lay expliquer. Mm. léegi nag ñuy wax ni ay wàññi nañ ceeb wàññi ku na cher na diwlin cher xoola mais na Sénégalais liggéey ñëpp ku nekk jug xam ne réew mi dañoo war a takk suñu biir fexe liggéey ko ñu ñëpp ñu ànd ak pouvoir bi liggéey ko mais ci kaw ñu wan ginnaaw tubaab bi d'accord rupture laa doon xaar ñu wan ginnaaw France wan ginnaaw tubaab bi génnee armée française def révolution soppi réew mi parce que loolu ñu Sonko waxoon tamit. d'accord loolu la ñu waxoon yaay booy moo tax ñu doon ñu ne pare ñu ne kenn du wax loolu yonent bi sax amu ko woon maa bi gën ñëpp ko woon comprendre nga léegi nag mu def ba pare di ne ñun waxoo ñu woon li ñun gis ñu loolu ba pare ñu ne non kenn fi wax da ngeen war a kii da ngeen def lii da ngeen def laa te ñun ñu doon wax ba nit ñi ñëw kon ñun dañuy wax ba ñun ñi comprendre ne ñun li ñu gisoon gisuñ ko li ñu digoon gisuñ ko wala gisuñu mu jaar ci yoon boobu. d'accord on peut pas créer kenn waxul nag léppay sotti ci. trente cent jours tey leen ci interpellé. non en réalité man man du ma jub ci interpellé c'est-à-dire interpellation bi weesu comme li ngay def li ma def. Mhm. si on a si on a quelque ko. Mhm. on libre et indépendant liberté d'expression ko fekk fi lañ koy bàyyi. d'accord li bon kay mooy ñi war a wax yëpp noppi parce que dañoo ragal ku leen fitnaal dañoo bañ dañoo ragal ay ay ay ay ay ay koy wax ay commentaire dañoo ragal ay nit yu ay live ñu dem ba nga xam ne ñi nga xam ñoo doon di wax ba réew mi taxaw fenn beneen taxawaay bi après ñu taxaw gis pouvoir bi fi bi fi nekkoon bàyyi fi programme PSE ñu fi ñëwaat adopté ko daan am na lu ci baax ci bon mais ni mais waxuñu woon loolu waxuñu woon loolu. d'accord lu tax ñu ñuy wax loo xam ne loolu loolu loolu amul tamit lan la. dañu mhm. wax dëgg wax ñu li fi ne man on a passé wax ñu li wax ñu yow doo révolutionnaire waxuñu tu n'es pas révolutionnaire waxuñu ñëw pour révolutionner dara waxuñu ne vraiment man maa waxoon damay wàññi me ni ma duggee ci biir gis naa ni mënu maa wàññi ñu ne yow kat moom mënoo liggéey sans prêt ay eurobond ak ay banque mondiale wax ñu yow fa nga la am ci tubaab pour génn ci naan bu mu jaam gi day continuer wax ñu ne armée française mu ñu fee jóge parce que base française bu ñuy doxal français yi bu ñuy doxal yor ñu di ñu dimbali ci lu bare bari donc seen base yi dafay nekk pour ñoom la c'est pas pour armée française nekkul fi pour Sénégal daf fi nekk pour France donc day gën a wane ni mainmise euh, domination coloniale bi que mainmise que France mi ngi am mainmise ba tey ci ñun te tey mooy contrôler lépp dañu waxoon nañu France CFA bi dañ ci jógee waxatuñ lu ci jëm loolu la ñu waxoon ta man même bu dee un mois sax démarche yi war na mën a wane boppam démarche yi rek yoon bi ngay jaar rek mën a wane boppam mais mais gisuñu loolu gars ñu ne ñu non yéen ñii wax xeexoon benn wax yéen ñii da ngeen noppi tey kenn du naan mais loolu duñ ko nangu sax duñ ko nangu. alors les interpeller parce que ñun mënuñu ñëw ne dañuy xeex état bi fi nekk mënul nekk di ñun ñoo yow di jël sa doom yar ko ba mu màgg ëmb ko ba mu nàmp nga jël ko ne da nga koy rey ba mu dëwee wala jëriñ nga koy rey hmm. fi ñu jaar it ba agsi fi ba mën fexe leen accompagner leen pression ba ñun ñu bëggoon tax ñu doon xeex ñu xam mu leen teg pression ba ñu teg affaire bi fi mu nekkoon que teguñ ko fi ñu nekkoon bi ñuy campagne bi ñuy jug li ñu woote woon instant yi tegul ci raay boobu noonu est-ce que dégg baax la la. Mhm. dégg naa la alors euh, Karim comme ni ma ko waxee ah ci euh, point justice bi ba tey. Mhm. Euh, xam nga rebondissement dafa am. Mhm. par rapport ak yenn cas yi ci justice bi. tey bu ñu jël bu ñu waxee waxu assise ñenn ñi wax waxu suppression article L quatre vingt neuf ku ci nekk ci ñoom wax. tey. am na rebondissement bu am. Mhm. ci kaaw justice bi. Mhm. si ñenn ñu ñu arrêté woon. Mhm. ba ci affaire Kaolack bi. alors tey euh, ku ci mel ni garde des so bu waxee jëm ci wàllum loi amnistie. même su fekkee sax génn na. pour apporter ay éclaircissement peut-être si yenn cas mais tey comme ni nga ko waxee sànq wax nga sa biir wax. Euh, tey am na ci loo xamante ni bu deñul est-ce que li ngeen di réclamer ci justice bi dina sotti muy wàllum loi amnistie parce que tey. ci kaawu sortie bi Ismaïla Madior Fall def mhm. loolu defaat na objet d'un débat mhm. par rapport ak émeutes yi nga xam ne moom moo fi jaar Ismaïla Madior Fall lu mu wax na bëgg nga ñëwaat si rek pour mu gën a leer si boobu Sénégalais yi quoi dafa dafa ñëw ci kaaw Dj Dj Badji ak Fulbert Sambou mhm. donc xëy na peut-être nit yi niñ ko interprété ak moom ni ko waxee peut-être bokkul lapsus moo am ci ay waxam parce que man aussi damay relater ni mu ko waxee mais nee loi amnistie couvrirul loolu. ok mais en tout cas ak lu mun di xew. ci mhm. cadre loi amnistie mu couvrir rek ñàkk couvrir tey pour régler cette situation la mhm. loi boobu tey posé na problème par rapport ak yenn. gis nga laal la laal la il faut il faut xoola man ma xam ne il faut tamit ñu respecter Sénégalais yi. nga xam ne xeex di rey seen bopp seen doom yi di ci kaso yi ñu nekk ci ay jafe-jafe te li ko yóbbu yëpp keroog maa ngi ko si benn émission li ko waral yëpp du dara lu dul justice bi quoi Ismaïla Madior la. Hmm? Ismaïla Madior Fall fenkat la c'est un menteur amul principe justice bi tey su melee nii moom bokk na ci moom bokk na ci ñu ko yàq ba mu yànq ba ñuy toog na dañuy defay assise. mais fenkat c'est pas trop. mais c'est parce que c'est un menteur. d'accord alxuraan am na fen baatu fen ci la tudd da nga am beneen baat boo xam budul fen dafa fen fenkat la. ok mais ñooñu ils ont trahi le peuple sénégalais ils dañu honoré wul seen liggéey ay nit ñoo dee pour seen ndax seen i mensonge ñoom. ay nit ñoo dee parce que du ñu ay waxkatu dëgg ay nit ñoo dee parce que dañu jàpp Ismaïla Madior Fall c'est mm-hmm. bu buy jàngale di ko jàngale université un vrai constitutionnaliste constitutionnaliste mag la quoi boo xamante ni a été très respecté am ñu bëri ñoo xam tey fi ñu jaar ñëpp Ismaïla Madior Fall moo leen jàngal mm-hmm. mais bokk na si li taal université ba booy découragé dem di songu euh, fac fac droit di ko lakk ak mm-hmm. mais Ismaïla Madior Fall la Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall est que war na taxaw bañ koy comprendre ba koy invité ci ay muy bañ ba muy toog di am ay propos yu muy wax ba ñu taxaw di ko déglu c'est que man loolu mooy seen problème ak bi ñu fi nekk nii man loolu laa am problème boobu laa am ak ñi fi nekk nii Ismaïla Madior Fall du dëgg du waxkatu dëgg du nit ku diñ yàq na lépp lu mu musoon liggéey yàq na ko Macky Sall ko jàpp réduire ko am miette jàpp ko def ko comme kenn xamul nappaaje ko comme limon après dem yoonam te moom il a accepté parce que dafa am ay privilèges yu mu doon xaar taxaw di gërëm Macky Sall ci kanamu ñëpp ay ku la jël def la ministre def la parce que ay privilège ay salaire moo tax ñu jàpp lu su mel ni honneur amuñu da ngay honorer sa liggéey mais ñooñu c'est c'est des gens yoo xam ne mais ñooñu waruñu am baat Sénégal waruñu sax jox micro ñuy en réalité bi ñu ko tegoon ci yoon Ismaïla Madior Fall ne devrait il devait en prison il devait en prison parce que lu bëri yu xew ci ay ci tey ci ay def ay ministre de la justice yu bëri yu xew ci Ismaïla Madior la jaare mais qu'on se dise la quoi mais tey ñooñu bu ñu taxawee di expliquer man keroog assise yi ma gisee ñooñu dañoo invité Ismaïla Madior Fall mu ne ñëwul quoi man après ah, dama man dama dama ça lu ma naqari quoi. man yow problème que posture am moom mais mu boobu xoolal képp ku nekkoon ci nguuru Macky Sall nekk ci justice bi wala nga nekk ci ministre nekkoon foofu noonu di liggéey ak Macky Sall pendant des années Macky Sall nekk ci pouvoir bi def lu ko neex ànd ak ay géwélam ñaa ko del rey di tëj muy rey di tëj di utiliser justice bi non déggul rek. Mhm. ay doomu aadama. jàpp Ousmane ko tam ko dëmm procureur taxaw jàkkaarloog peuple Sénégal def ay conférence de presse une heure de di jiiñ kilifa gu mel ni Ousmane ko ay viol ak yàq deru doomam jabaram dugg ci vie privée mhm. dem keneen encore yàq fi ay nit di sosol doomu aadama yi def fi lu nekk ñaawte bu nekk ray fi ay nit tëj leen tooñ leen ba pare justice bi ñu utiliser na ñooñu ñooñu tey bu ñu jàppee naan dañu am lu ñuy déglu si ñoom wala benn liggéey bu ñu leen yox ñu koy liggéey loolu pouvoir bi fi nekk yàpp sénégalais yi la mhm. nañ waxante dëgg quoi man ay Ismaïla Madior Fall yooyu man c'est des gens yoo xam pour man il n'existe pas man damaa bëgg nit ku gëm boppam. Mhm. man damaa bëgg nit ku gëm boppam. tey bu ko tey maanaam Macky su bëggoon. Mhm. kon ne agrippé pouvoir bi moom pare woon na pour wax ni ko comme ni ne peut faire plus de deux mandats consécutifs bi. <laughs> article 27 waaw. Uh-huh. gis nga Ismaïla Madior Fall li mu si waxoon après. Uh-huh. lépp si mu costume am dëppaat ko carrément mel ni du gor di xool Sénégal yi bët ak bët di wax lu dul dëgg askan wi jug di xeex mu taxaw di jàkkaarloog ñoom pour défendre benn nit pour intérêt boo xam ne benn salaire la buy dugg ci poosam pour dundal njabootam loolu du ko tëleeg prostituée te maanaam maintenant quand les prostituées dañu am kàddu des gens qui qui ont vendu leur âme vendu leur dignité dañu am kàddu ci dëkk bi di wax ba tey ba régime Sonko bi régime Pastef bi ñëw taxaw di leen déglu di leen invité ci ay assises di leen déglu jox leen ay poste ñu toog ba jàpp ay nit di wax de fuddaliku mais ñii dañuy yàpp boo bëggee dégg dëgg dañuy yàpp te dañu war a respecter parce que ñun donc on s'est sacrifié pour changer Sénégal te y a rien qui les na ko wax dëgg yàlla bu ñu mënu ñu ne mënuñu quoi mais bu ñu imposer lu mënu nekk ba pare eh, ko fi waxee ah eh Karim eh yéen kii da ngeen di noppi ah da ngeen di attaqué da ngeen di wax da ngeen defal soixante-douze heures xam nga da ngeen defal vingt-quatre heures te léegi après li nga xam du dëgg ñun ñu noppi ko mais loolu mënul nekk la c'est impossible amul kenn ci àdduna ginnaaw suba subhaanahu wa taala ku ñu tere wax li nga xamante ni mooy suñu xalaat te mu nekk dëgg ci ñun te ñu jàpp ni ci li neex yàlla lay tegu ak siraatal mustaqim kenn feesul suñu bët ku nekkul ci dëgg ñu ne nekkoo ci dëgg ku yaakaar leneen lu dul yàlla demal nga fu nekk feneen fu nga lijjanti ko ñun li mu gëm mooy réew mi nii duñ ko bàyyee kenn parce que dañ doon xeex pour mu defaru. d'accord donc ay Ismaïla Madior fal ay cest à en réalité justice bi man Diomaye lu tax sax mu wax loolu lu tax mu naan euh, lii ngeen ma jox nii jàpp leen ni du dem ci suufu table ji lu tax muy wax loolu mooy il se sent gêné quoi su demee ba justifié wu di leeral loolu. yow nit ñi dañ dee nga falu pour changer loolu nga du dem ci suufu table yi na dem ci suufu table yi mu xool il n'a pas besoin de ça de dire il n'a pas besoin de dire ça mu la doon wax d'accord alors Karim dama bëgg nga ñëw ci ci ci rebondissement wu kaw Kaolack bi. parce que gis naa ni boobu ba tey euh, am na sum d'après suñu ay investigation mhm. mbir mi euh, dafa dafa amaat peut-être leneen loo leen ci xam peut-être ci luñ ci xamul parce que mhm. gis naa ni yaa ngi ciy gën a xuus par rapport ak loolu te am na ñu la ci interpellé woon ci sur la situation carcérale te yow xam nga ci dara mhm, moo tax ma bëggoon nga ñëw nga ñëwaat Euh, euh, un tout petit peu ci ci cas boobu. waaw xam nga xam nga laala man dama doon expliquer ma ni euh, déjà ñun xam ñun dama koy wax chaque fois ma ni ñun laala injustice la ñuy xeex d'abord. ok injustice bi ñuy xeex noonu lañ moo taxoon ñu jug ànd ak Sonko di ko jàppale parce que dañ ko doon tooñ ñun bëgguñu koy tooñ ñun bëgguñu koy tooñ ñu jox la pouvoir ngay jaay doole di tooñaate bëgguñu loolu ñun suñu combat yi ñuy combattre dañuy xeex pour défendre valeurs yi dëgg la mais dañuy xeex pour xeex injustice parce que justice en réalité dafa war a ba pare justice mooy ndayu lépp parce que justice étymologie étymologiquement baat bi ci juste la jógee. Mm-hmm. léegi nag loolu su amulee loolu mooy tax day créer ay monstre injustice day créer ay monstre léegi loolu moo tax ñun suñu combat yëpp bu ñu xoolee ba xam ni ñun li ñuy xeex yëpp en nday ji li ko laytaay mooy injustice bi nga xam ne moo nekk ñu nekkee ko ñun nekk ndumbelaan moo tax mënuma baal kuy comprendre ay nit yoo xam ne ay tooñkat lañ jël pouvoir jël justice di ko utiliser di ko instrumentaliser di dal ci ay kaw nit wala di ko utiliser pour toog ci ay pouvoir Kaolack ay nit dañ yoo xam ni dañoo dem sulli néewu góor jigéen bi lakk ko jigéen boo xam dafa nekkoon Kaolack ñëpp xam ni góor jigéen la yamul ci nekk góor jigéen kese de mu créé site proxénète di créé ay prostituées yu nekk ak moom muy liggéey. Mm. nit ñi xam ko xalab ko bi mu génnee àdduna ñu ko ci armeel yoo xamante ne nii. ay wàllu yàlla ñoo fa tëdd ku mel ni yaayu Baay Ñas yal na ko yàlla yërëm ku mel ni Sidi Lamine Ñas mi ngi fa la tëdd ku mel ni ñeneen ak ñeneen ay ñu maam maam maam Xalifa Ñas ñooñu après ñoom ñu jël am ay mbokkam ñu jël kooru góor jigéen bi dem suul ko foofu ca ca ca armel boobu noonu foofu lew na ñaseen ñëpp xam nañu ville sainte la ville sainte boobu nga jël néew góor jigéen doo ko seen biir sëriñ suul ko peuple bi jug waa kelew ñaseen juk dem sulli néew ba mm-hmm. yaa ngi may dégg bi ñu ko suulee ñu taal ko xoolal ñun du ñu gis nga problème mu problème assumé la quoi. Mhm. ñun on combat l'homosexualité ok sous toutes ses formes nag xoolal apologie de l'homosexualité kuy défendre homosexuel financement homosexualité eta buy comprendre homosexuel wala ku ci jëm a tolérant wala ku jugee ci xaj ñëw taxaw naa ñu ay man maa légaliser homosexuel maa xeex ba ba ñu légaliser ko comme genre mélange yi. Mhm. ñun yooyu dañ koy xeex. d'accord sur toutes ces formes amul doomu aadama maqaama booy am nga ñëw di ñu wax waxi góor jigéen ñu di la déglu amul dañ lay ne léegi léegi ne la arrêté goor mhm. góor jigéen bi ñu sulee néew boobu euh, gars bi ñu sulee góor jigéen néew boobu lakk ko. Mhm. ah coow li dafa commencé après police dafa ñëw intervenir jàpp ñu suloon ñu suli woon néew euh, néew jigéen bi te jën ci kaso bi def nañ huit mois ci kaso bi. Mhm. te dañ leen tooñ trois fois tooñ bu njëkk bi mooy dañ leen euh, dañ dañ dañu ñëw seen dëkk. suul seen armeel suul fa góor jigéen mhm. dèjà armeelu jullit kenn du fa suul kenn du fa suul góor jigéen yonent bi dafa wax carrément ne ba mhm. léegi dañ fay seen am seen i xabru sëriñ nekk foofu ñëw suul ko foofu mooy beneen boobu mooy deuxième deuxième bi troisième bi mooy ñu jàpp leen tëj leen ba pare yóbbu leen instruction mhm. instruction ay enquête la nee nañ c'est ay enquête la quoi en réalité mm-hmm. dañuy def ay enquête quoi par pour xam na la euh, seet bi demee autou mooy kon enquête yi def si institution yi pour justice mm-hmm. sénégalaise bi nga xamante ni boobu mm-hmm. bu fekkoon ni ñun bu ñu fekkoon si foofu noonu dañuy suli néew bi ñun ndax maam asu jànka duñ ko bàyyi muy tëdd foo xam dañ fay suul ay góor góor jigéen lañ jur bàyyi ñuy dugal ci bàmmeelu bopp bàmmeelu jur yi waxatuma laat ay jur yoo xam dañ leen ñu bàyyi ay ay ay ay góor jigéen di fa tëdd ci même même kii bi même même même ville bi dañ koy suuli foofu buñ ko yëgee wala boo ko suulee te yëguñ ko bu ñu xamee ne góor jigéen dañ koy suuli sànni fële loolu xam nga ko ku ne xam nga ville sainte ni muy doxee donc leew nañu seen ville sainte la mhm. léegi nag ñooñu mën leen bàyyi ci kaso bi non seulement huit mois ñu tëj seen i jabar gisutuñ seen doom gisutuñ leen ñu nekk ay nit yu baax gëm seen tarixa gëm seen diine topp seen diine respecté ko def li yonente bi wax ñu ñëw arrêté leen non seulement dañ leen arrêté fàtte leen ci kaso ba noppi ay yeneen nit ñu dafay bi waaw ci bu fekkee ni yow da ni yow état du Sénégal dafa ne ñoom ñoom dañ dañuy xeex homosexuel li ñuy wax sama ils sont tolérants Sénégal dañuy tolérer homosexualité mais là bu ñu toléré homosexualité aussi ñun peuple sénégalais bi toléré wuñ ko parce que koo xam ne yow bu ñu la jàppee dañ bu ñu la boo moytu bu ñu la bettee ngay def acte bi nañ la rey te fekkee laaxut nañ la ba suula li ngay suuli tàll ana tolérance ana tolérance c'est très clair maintenant problème sociétal la avant mu yegg ci côté politique ñun société bi ñoo koy régler ba pare balaa ñu yegg fenn man Abdou Karim dama koy chaque fois ñu naan Karim dafa ëppal ak Karim daa kii man sama ne aussi en réalité ceux qui cherchent à plaire les gens bàyyi kàddu yàlla yi ñoo am problème mais xoolal góor jigéen dañ koo war a rey te kuy jaay baax ci àdduna bi yonent bi la gën a baax sallallahu alayhi wa sallam hmm. kuy jaay jub alxuraan moo tàgg yonent bi te moo ne dañu góor jigéen rey leen ko rey leen ko d'accord kon ñun loolu lañ gëm ñun lool lañ gëm te loolu lañuy loolu la ñuy pratiquer loolu la ñuy appliquer hmm. est-ce que comprendre que on négocie pas li ñu doon waxal Macky Sall ci góor jigéen naan kon góor jigéen dañ koy rey bi ñu ko jàppee dañ koy taal loolu discours boobu noonu mais virgule du ci changé virgule changé ku yaakaar ni ñun dinañ wàññi suñu discours lu toll ni yotaa parce que régime bi moo fi nekk wala parce que dañoon xeex ba ñuy toog fi moo tax léegi maintenant il faut ñuy dolli suñu ndox tuuti di comprendre ay góor jigéen góor jigéen bu ñu ko suulee ci armeelu kilifa yi dañ koy suulee taal ko buy dund sax dañ koy yeew taal ko góor jigéen du fi am baat te képp kuy goor jigéen ngay yaakaar ni arrestation yi police di def ak justice bi pour faire plaire organisation Euh, kii euh, des homosexuels la ay Nations Unies ay yooyu pour les faire plaire pour ay rapport pour wane ni Sénégal moom góor jigéen au moins ku ñu ku leen créé dinañ la tëj kii nangam nangam mais góor jigéen bu ko yaakaar jàpp di nga libre Sénégal yaa ngi nax bopp bu ñu la jàppee doo am jàmm nañ la dóor ba nga dee mbaa ñu tàll bu ñu suulee nañ la suuli ku ci bañ gàcce boo amee sam góor jigéen na nga ko maa nga dem mu ñëwee loo xam lu ko Sonko waroon wax li ngay wax nii képp kuy defaan góor jigéen xaj la waxuma la nga nekk góor jigéen de kuy defaan góor jigéen yow xaj la góor jigéen ji fi xaj la yow léegi soo nekkee xaj góor jigéen nekk xaj ngeen bëgg def seen yi fi xaj da di jàll ca xaj est-ce que dégg nga baax la ma expliqué mhm. c'est man loolu a gëm ko man en réalité parce que yow yow ñu tubaab bi mënuñu taxaw am ful la bu toll ni di défendre ñoom seeni i principe seen i ngëm-ngëm seen i programme génne seen i alal di ko ci dugal teg seen i programme di tas di ko dugal ci àdduna bi di fexe mu dugg fépp di def seen i campagne créer seeni i parlement préparer seen nit forme euh, defal leen ay formation pour ñu def def ay communication def ay séminaire pour développer homosexualité yow amoo fulla yow julit bi yow seen julite alxuraan jàngal la ko nga xam kon kan mooy yoon Yàlla Muhammad ah wala yow yow chrétien bi nga jàng sa bible xam lan mooy religion chrétienne amoo fitu teg sa programme doxal religion bi nga xam ne ci diin sa diina la tegu amoo fitu taxaw wax wax sharia amoo fitu wax sa ngëm-ngëm nga toog tubaab bi am fulla toog fekk la sa biir dëkk di la waxi góor jigéen te ñemee woo sax prononcé wu parce que dañ lay jox looy dundee mais loolu c' est malheureux quoi c' est très grave. d' accord est ce que tu vois dire. donc Kaolack ñun suba incha allah ñu ngi Kaolack. d' accord ñu tuddee suba ñu ngi Kaolack te dañoo bëgg libération boo xam ne sans condition. amul explication amul dara ñu bàyyi leen ñu ñibbi seeni kër. d'accord mais Karim foofu dama la bëgg a interpeller parce que mhm. boo waxee waxu charia. Mhm. waxu waxu bible Sénégal c'est un pays laïque. waaw ah, non non loolu débat boobu wax nañ ko waxaat ko. waa no en fait. Ah. en fait ci mhm. sillage bi nga waxee noonu. en fait je xam nga boo waxee nañu appliquer charia. te Sénégal dëkk la boo xamante ni dafa composé musulman. chrétien animiste et autres. ok donc c'est une république laïque. démocratique ok dañ dama koy waxaat fii répété waat ko xëy na répétition lay nekk rek. Mhm. dama dama wax ni Sénégalais yi xamuñu sax laïcité lan mooy définition bi xamuñu ko sax ñu ci bari tubaab bi dañ leen nax France la ñuy wax te pourtant seen ñuy wax noonu bu dee ku nekk am nga droit yéen dañuy jàpp ne laïcité mooy ku nekk am nga droit dund sa diine normal lu tax foofu les femmes voilées lu tax foofu góor amul ñaari jabar du laïcité mooy yéen ngeen ko jàppee ne laïcité mooy ku nekk dund sa diine. mais en réalité étymologiquement baatu laïcité laïcité xamal la mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion loolu mooy laïcité mooy diine yi ñu amul diine te ñun wa atasibu bi abdillahi jami'an ñun ci buumu yàlla bi lañ jàpp. di seen bu baax la ñuy expliqué. c'est-à-dire ñun amuñu ñun tatonewuñu quoi ñun dañoo am yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko gëm alxuraan gëm bésu penc am lu ñu gëm am texte alxuraan ñu gëm ko ñu jàpp ci buumu yàlla bi ñun nekkuñu di tatonné quoi. d'accord comprendre nga dégg nga léegi xoolal laïcité boobu ñu noonu. Mhm. loolu ñun mënuñu dund laïcité Sénégal mënuñu dund laïcité dëkk bu Serigne Touba nekk El Hadj Malick ne fi nga dem fii eh, demal ci jàngu bi nga xool. Mhm. catholique yi organisation bi fi am ci diine. même bois sacré sax dafa am organisation ci diine yow nga ne léegi ñun ñun dañuy teg ci ñoo xam ne amuñu diine ci laïcité mais loolu dañ ko war a combattre ñun suñu combat ci xeex laïcité la bokk xeex laïcité daf ci bokk. d'accord donc il faut comprendre en réalité c'est quoi la laïcité beaucoup de gens nous baaxul. laïcité moo tax ñu mën a bàyyi jigéen muy jaay boppam ñu bind ci code la famille Sénégal jigéen am na droit jaay boppam bu ko papam jàppee mu indi problème mu yóbbu papa police police tëj papa ji ci laïcité la jigéen di ministère de la santé di subventionné ay prostituées ñuy faju dem di faju di piqûre di di rafetlu laïcité loolu amatul fenn ci àdduna bi ci laïcité la ñuy jàppee di publicité ay préservatif ay sàngara fu nekk. ci laïcité la ñuy profité di dugal lu bon parce que ci dafa am nuance bu nekk ci biir laïcité te war def ci ay débat li mu nekk la liberté de la culte liberté de la culte lu tax muy tere tubaab bi fan la jógee du France du fa ko jëlee lu tax muy tere musulman yi voilé wu France lu tax muy tere musulman yi bañ a a am ñaari jabar France te loolu mooy loolu mooy liberté de la culte liberté amatul di. d'accord donc kon léegi Touba Touba munoo wax a wax bu Touba laïcité am fa Touba laïcité amu fa Touba Touba moom doo fa naan Touba amul baar Touba kenn du fa fecc ak sabar Touba kenn du fa baal Touba moom dem nga fa dem naa fa moom Touba yi sax dañ ko fay tere. bis bu sax doon amaat bis bu ñu nga gis ñu nangu ay nit ay greffage nangu ay tubéy fekk kuy mànd ñu dóor ko wala indi ay porte dañ ko organiser Touba damal lew na ñaseen damal damal damal damal si yeneen ville am na foo xam damal Cambérène gi rek am na foo xam doofu tux léegi man dama wax ma ni léegi ñun laïcité bi ñuy wax noonu ah en fait en kan moo koy défendre ak ñan ñoo ko téye mais ñun nekkuñ ci pays laïque dunduñ ko ñun le peuple sénégalais dunduñu laïcité ndax ñu bëgg ñu ko imposer. d'accord Karim alors kon su ma la déggee nee nga suba incha allah di ngeen dem. Euh, fële nga xamante ne moom mooy Kaolack. Mhm. Euh, donc comme ni ngeen ko euh, commencé xeex bi. Mhm. du ngeen ko bàyyi benn yoon donc xëy na peut-être dinañ am occasion pour topp loolu pour am ci gën ci am lu ñu leer. Mhm. mais fi ma bëgg ñu dugg fa mooy tey sànq wax nga ko. Euh, nee nga carrément euh, euh, li ñuy xaar gouvernement bi ñëw nga si bu baax a baax. Mhm. mais tey ñu ngi jëm ci benn perspective boo xam ne peut-être dina permettre nit ñi gën a xam fan la Sénégal jëm muy déclaration politique générale bi premier ministre war a def. Mhm. mu jur coow ci diggante ñoom ak assemblée nationale. Mhm. parce problème bi mooy réglement intérieur bi dañu jàpp ni nekkul en règle mhm. et que interpellé nañ ko peut-être mhm. mais kenn régularisé wu ko mhm. tey bu ñu toogee ba loolu nekk benn quoi bu jur wàllum DPG bi ñu mu taxaw ñuy xaar pour ñu régulariser ko pour que moom mu mën a ñëw def déclaration mu mel ni histoire dafa dem ba rattrapé waat assemblée nationale par rapport ak euh, li nga xam ne moom mooy règlement intérieur waaw xam nga politique bi ñu doon woote ñoom moo laajul sax ñuy am coow yi nii xaw ma xam nga mu lay wax bu fekkee da ngay gouverner pour peuple bi rek eh, peuple bi ñoo la fal ci na pas waroo ragal dem assemblée nationale di langaamu ci ay textes yoo xam benn saay saay moo ko fi defoon. ah dafa ragal. xaw ma parce que ah, la moo tax la moo tax bëggul def déclaration de politique générale lan la. bu ko def assemblée nationale waxul defu ko de. dani mhm. il faut ñu régulariser règlement intérieur bi. mu léegi règlement intérieur bi. règlement intérieur bi bi ñu koy bi ñu ko régulariser ñoom nekkuñu woon foofu di imposer PM bu njëkk ba pour mu ñëw foofu def def déclaration présidentielle. ñoom nañ ko. ni ko pour mu bañ ñëw mais malgré loolu dem na. non moom laay wax. Mm. en réalité loolu dama ne loolu en réalité on y gagne quoi. assemblée bi ak quoi qu'on puisse dire assemblée bi moo fi nekk dissoudre guñ ko ba keroog ñu koy dissoudre. Mm-hmm. Sénégalais yi ñoo soxla mu def déclaration politique générale il le fait pour le peuple sénégalais les sénégalais ont besoin de ça parce que dañ ko fal. te peuple sénégalais dañoo jug donc moom li ñu war ko wax mooy comment naka lay def ba organiser mu def déclaration de jaxaay def ko caata gi loolu amul sens amul am solo. mooy les sénégalais dañ koy xaar moom pour mu bu ko waxul tamit bu ko waxul tamit mi ngi soxal parce que bëgg nañ toog déglu ko mu def déclaration de politique générale. mais mu demoon assemblée fa nga xamante ni moom. si mooy pencum ndaw réew foofu foofu peut-être. waaw dans foofu institution la. bu wér on n'en disconvient la mais yaa ko wax fa mhm. oh, am lu xew foofu noonu. c'est-à-dire xam nga euh, Macky Sall ak tous ni yow ba nga nga mën ci xam politique à chaque fois gars dañuy utiliser ay euh, loo xam ne kii moo pour xam nga jéem a def mais man li ma gëm mooy en tout cas ñi koy xaar mu def déclaration de politique générale. Mhm. ñun moom on l'attend impatiemment nu mu ko mën a defee nu mu koy defee ay règlement intérieur ni ñu def lijjanti ko nu ñu ko mën a lijjanti nga xam ne moom peuple sénégalais bi ñoo ko fal te ñu ngi koy xaar. mais Karim assemblée bi euh, askan wi lañ fa nekkal. waaw war nañu mën a xool intérêt askan wi. waaw waaw xam nga assemblée nationale lu mel du maa la ko wax du man maa la ko foofu Abass Ndiob xam nga Abass Ndiob assemblée nationale mooy Abass Ndiob. yooyu député nekk foofu nga ne leen. Abass Ndiob moo raw Abass Ndiob cest à dama lay wax quoi en réalité mais. xam nañ ñun xam nañ moom lan moo koy sonal ba mooy loolu mais li ñu bëgg wax mooy en ñun les sénégalais ñun peuple sénégalais man ne ko assemblée yow ne ko assemblée te boo waxee sa xol bëgg nga mu def déclaration de politique la. mais daf ko war a def waaw boo demee waaw ok mu ngi noonu. daf koy def léegi nag ñoom dañuy na tara ñu taxaw fa ñoom di wax nañu dëgg rek. léegi maintenant comment on fait pour s'organiser est ce que jàppul lépp tegu dans les rails. peut être jubbanti aussi maintenant ok en tout cas en tout cas ñun on attend impatiemment la déclaration de politique générale ñu ngi koy xaar. Mhm. waaw loolu daal laa si am lu ma si expliquer quoi impatiemment parce que soxla nañ ko ñun dañ ko soxla. parce que on a beaucoup de questions beaucoup man mii sax ma ne du ma def sortie tant que deful déclaration de politique générale ma xam yan point la énuméré lan lañ si wax ak lan ak lan fan la si taxaw ñu mën ci wax ñu ngi koy xaar daal léegi ñu ngi koy déglu. comment ils vont faire pour s'organiser loolu ñoom ñoo ko xam ndax bu ne yaa xam ne ku xam ne tojee sa bopp janax. d'accord waaw. alors euh, dañu mënuñu bañ a ñàkk ñëw ci situation bi nga xamante ni peut-être dafay euh, interpeller sénégalais yëpp parce que ñun ñëpp ay citoyens lañ. Mhm. tey RTS RTS su Sénégal yëpp la. Mhm. donc bu ñu gisee ñu fal directeur général bu bees. Mhm. mu ñëw fu yàggul dara mu ay coow commencé jur seen diggante ci affaire gestion. ak euh, wàllum salaire mhm. peut-être ak ay prime ainsi de suite mhm. donc ñu gis ñenn ci liggéeykat yi ci ñoom di ŋàññ euh, décision bi nga xamante ni euh, directeur général bi jël na ko mu bëgg adopter beneen situation bu bokkul ak bi ñu fa daan dund wala bokk seen payoor yeeg yooyu mhm. loolu aussi bëggoon naa nga apporter si li nga xamante ni moom mooy sa gis-gis waaw xam nga man affaire ETS dama si expliquer damay wax ma ni dafa am loo xam ni sénégalais yi comprendre guñ ko quoi. que RTS Sénégal yëpp ko bokk Sénégal yi tàmmuñu nag Sénégal yëpp di bokk RTS. ndax hmm. d' abord rek bi bi bi bi Pape Alé Niang jëlee Wally Seck def ko. ambassadeur ambassadeur coow li quoi. te man damay xool statut bi Wally Seck am Sénégal man gisuma artistiquement actuellement nii ban artiste moo ko fi am. Hmm. man gisuma ko léegi ñoom gars yi disent des erreurs du passé wala peut loo xam ne Wally def na ko. si affaire yoo xam ñun attaqué woon nañ ko fi si affaire homosexualité ak yooyu ni mu doon promouvoir homosexualité bi di sol ay t-shirt yoo xam ne ay drapeau LGBT ak yooyu ñu ne Wally Seck du du en moom nekkul référence quoi boo xam moom la war a jël pour def ko ambassadeur mais en réalité Wally Seck moom moom xam na bu baax a baax a baax a baax ñun loolu mu doon def noonu fan la ñu toll ak nan lañ ko doon xeexe moom te wax dëgg yàlla man boobu léegi gisaatuma ko mu yëngu ci lu mel noonu mm-hmm. te man damaa jàpp ah, boo waxee dara si moom nga xeex ko ba nga xam ne lii mi ngi avancé dañuy avancé quoi Wally Seck man gisuma ku ko gën am statut bi mu am actuellement ci jeunesse sénégalaise bi. Mhm. statut bi mu am maanaam dama wax ni Pape Alé Niang li mu def Wally Seck li mu jox Wally Seck ci boobu mu jox Wally Seck Wally Seck moo ko moom daf ko mérité. ok daf ko mérité loolu il faut gars yi génnee seen bopp yi ay kii xeexul woon ak kii kenn la àndul woon ak kii àndoo. dañu nekk ci démocratie. Mhm. nekk ci état de droit. man su ma neexee ma ànd ak Ndeye Ndiaye Bandaya yow su la neexee nga ànd. xam naa ñëpp. daa xam yow xoolal la neexee yow nga ànd ku la neex. nga ànd ak mhm. pepe ku nekk mhm. ànd ak ku ko neex. loolu mooy état de droit. d'accord bu ñu demee ba nga xam ne majorité bi ñoo voté réew mi changé léegi kii gouverner di doxal ñi doxal réew mi yor instance yu mag yi ñoom dañoo gouverner pour ñëpp dañuy gouverner pour ñëpp RTS e ñëpp ko bokk. te Pape Alé Niang am na fulla bu toll ni caractère boo xamante ni moom xam naa ne amul complexe kenn man dund naa ak Pape amul problème mu ay di ut ay wala xool lu neex kenn dina fexe ba ku xeex ak ku xeexul ci bokk ku jàppoon ni bokk nga ci mu wan Sénégal yëpp ne RTS nit ñi ñun ñëpp ko bokk. Mhm. est-ce mu jël ñëpp yamale leen loolu moo tax mu am sañ-sañu jël Wally Seck jox ko loolu. ni dafa am lu muy def loo xamante ni day yàq ñun ñi ko war a xeex suñ ko gisee dinañ jug xeex ko mais li ma gis nii ci Wally Seck li ma gis moom instant yi nii wax dëgg yàlla rigueur la liggéey. Mhm. ñafe te mooy wax dëgg yàlla xam nga star ak célébrité bokkul. bokkul mën nga succès ak célébrité bokkul gars yi mën nañ am mën nañ célèbre am succès mhm. succès xam mel ni Viviane par dafa am succès. Mm-hmm. Mm-hmm. mais Youssou Ndour euh, Souleyman Faye ko daa xooy Souleyman Faye daa xooy Sénégal. Mm-hmm. mais Youssou Ndour succès bi mu am Souleyman Faye amu ko. Wally Seck succès bi mu mais euh, Abdou Guité Seck mën na ko daa xooy te du ko am. Viviane succès bi mu am gis nga Viviane Viviane ba léegi nii ba léegi Viviane xale yi ko daf si way yàlla mooy def loolu si nit. gis nga génération bii way yëpp ku ci ñëw taxaw jàkkaarloo Viviane Viviane defee sens dañuy daanu ñoom ñëpp parce que loolu succès la yàlla mooy def loolu léegi nag dafa am yoo xam boo ko toppee méchanceté lay mujj niru mhm. ci domaine musical ci domaine artistique Wally am na ci statut boo xamante ne yàlla moo ko jagleel mhm. da nga ko koy nangul ma noppalu nanguloo ko ko da ngay léegi nag li ñuy bañ ñun pour Sénégal di ko sàmm ci ay éthique ay valeur ñun ñi ngi toj soog Wally Seck xool ndax moom mi ngi respecté ñun Sénégal suñuy vertu suñuy ngëm-ngëm ndax mi ngi doon dox di ci yooyu mu doon def wala bàyyi na ko te wax dëgg yàlla gisuma gëj naa ko gis mu dox ci yooyu koy félicité ci loolu léegi ñu ñëw si xam nga ni RTS am na ñoo xamante ni 15 ans dañu naan toog naa ay 15 ans dañu mettre au frigo 20 ans dañu ma au frigo dañu jot seen salaire toog seen kër ñu leen jox sa kër salaire da dem rek da weer day jot rek nga dem nang si banque bi dugal si gab bi dugal sa carte ci rek mu génnee xaalis bi nga dem toog mais yow boo diñee gëm sa bopp est-ce que war nga ko lekk dañu mettre au frigo damay ñëw jàkkaarloog boss bi ne ko xam nga loolu da nga may bàyyi ma liggéey wala ma démissionner ñii taxaw ci télé bi yëpp di wax naan dañu ma mettre au frigo dañu ma mettre au frigo ñëpp seen salaire la doon fekk seen kër dix ans cinq ans deux ans trois ans pour lan te ku ne xam nga ni salaire yii ñii di kaas di ko réclamer ni ñoom waa yi fa jógee nu mu tudd. Euh, Racine Talla. waaw Racine. fayu leen ko Racine Talla ba muy dem la yokk salaire yi ba mu demee bay dem la def sabotage yokku salaire yi def ay indemnité de logement yokku salaire nit ñi foofu boo xam ne moom fayu leen ko moom.

Pape Alé Niang bu defoon naka suñu noonu moom xam na moom xam na man ma ko wax raaj mais li ma gis muy liggéey man dama gis ni ci yoon la ko teg nañ ko bàyyi mu liggéey. d'accord te li muy def xam na ko nañ ñu may suñu jàmm. ETS ya non nañ waxante dëgg rek ETS yàgg na fee ne mosoo leen gis ñoom ñu manifester. Mm-hmm. ñoom xam nañ ku fa nekk grâce à la daaw leen sax nuyu ku fa nekk di manifester mu daax la ca xaj léegi nag dañu bëgg a liggéey ñëpp a war a tolloo ci boîte bi amul kenn kuy jël temps di liggéey pour keneen amul kenn kuy jël plus de temps di liggéey pour keneen nañ teg affaire yi si yoon tamit quoi man loolu laa gëm damaa gëm Pape Alé Niang wax courage am na fulla am na fayda dégluwul kenn mhm. waa parce fii di wax ak daan ay diw moo liggéey fii ak kii moo xeexoon ne ko xeexu xeex ñëpp a ko bokk mhm. ku xeex ku xeexul ñuy gouverner ñëpp la ñuy gouverner mhm. Diomaye Faye président wu ñëpp a baax ko bokk kenn moomul RTS maa a ku gën a contre Diomaye ku gën a contre sax daa am wàll RTS Pape Alé mooy directeur RTS télém la kon dafa war a gis boppam ci télé bi li fi doon am amatu fi ñi fi nekkoon dañuy ñëw jël télé bi di ko jëmale ci pouvoir bi di def ay affaire yooyu Pape Alé Niang di ko def mhm. te su ko defee ñu wax ko est-ce que nga mhm. ñoom nañ xam ne ñoom waa Pastef RTS ñoom moomuñ ko moomuñ ko ñoom ok ñi xeex bari nañu te bokkuñ Pastef benn ngi nii toog ñëpp a xeex Sénégal yëpp a jug di xeex ki ci àndul àndoo si loolooy réew loolu mooy démocratie point final d'accord yeah am na solo alors ci wàllum assainissement gis nañ opération déguerpissement yi am. Mhm. mu xaw a juraat ay euh, quelque problème par rapport ak marchand ambulant yi. Mhm. gis nañ sax cas bi xew Colobane Rufisque te gis nañ ñu koy gën di con continuer pour désengorger marché yi et occupation illégale de la voie publique bi. mais euh, dafa jur ba tey ay problèmes yoo xamante ni ñu ngi ciy jéem a ut solution ba tey mhm. saa bu ñu waxee opération déguerpissement rek dafay jur coow fii ci Sénégal waaw mais xam nga loolu man man damay wax ni euh, nit mënoo liggéey te doo te te loolu du am mhm. non pas yàq defar la xam nga moo tax Ousmane Sonko noonu bu amoon ay mbokk wala ñu koy wax dëgg dañaa ko lan nga fay uti lu mu fay def Ousmane lan loon def ko la man daal am nga ci xalaat lu mu fay def Colobane dañoo war a jóg foofu ñu nekk noonu foofu loolu mënul continuer dañu war a fexe recenser ñi nekk foofu di ambulant xool fu ñu defar fu ñu leen jox ñu nekk fa mais dañoo war a jóg géew waratul continuer di nekk xam nga géew man ko bopp laa dëkk dama doon dem di jaay samay dàll foofu ñun dañoo ne suñu dàll ba kii nii dañuy dem jaay ko échanger ko foofu xam nañ géew bu baax mais géew dafa war a jóg foofu Colobane mais nit ñi mënuñu dem occupé foo xam ni foofu foofu dañ ko war a defar léegi Ousmane Sonko lan la fay def du bàyyi ministre de l'Intérieur mu liggéey mais amul kenn ku ko war dëgg dañ lay bàyyi rek ngay wax rek lan la fay def lan amul lu muy def foofu parce que il faut déguerpissement am il faut ñu defar dëkk bi mhm. il faut ñu organiser ko bo voyager da nga xam ne Sénégal dañuy font rek mais tey da ngay gis Sandaga dem da dem ci yeneen ville yi boo dégg boo génnee Sénégal mais da gis dañ koy defar ba mu correct ku nekk fi nga war a nekk na nekk fa ñu organiser jël recenser ambulant yi jël u defar leen fu ñu nekk ñoom ñëpp ku nekk ñu jox la place boo nekk booy dugal di ko fay ndànk-ndànk nga fay ko ñu fexe ba ibil la benn benn banque boo xam loo am dugal ko fa mu lay xam ngay fay bor yooyu mais loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg il faut pas mentir wax leen ne yi ñu nekk di jaay dañ koy dégër pire dañ fiy jógee ñoom ñëpp dañ leen xam ko wax leen dëgg loolu laa lay wax gis nga gouverner c'est pas compliqué. c'est d'abord prévoir ba pare c'est d'abord dire la vérité. être sincère avec ton peuple. man loolu gëm man du ma nax kenn du ma man gëmu koy naxaate parce que yàlla moo bëggul ku du wax lu dul dëgg parce que ku ne xam nga ni tey bu ministre de l'intérieur demee bay def ay arrêté ñuy dem pour jël leen fi loolu mënul nekk. mais jàppoon ni aussi population bi am nañ ci part de responsabilité. ban part de responsabilité la ñu am. par rapport peut-être am na ci culture yoo xam ne jot nañ ko tàmm pratique yoo xam ne du moins jot nañ ko tàmm ba. léegi lan mooy loolu laal. Ah, lan mooy loolu leen à l'ordre mais léegi rappeler à l'ordre ki nga xam ne moo taxoon Sénégalais yi fal moom mu jàpp moom bu demee foofu na régler problème mais dem fa def fa lan gën a indi institution ci bopp nit ñi lan lan lan lay yan yan bâton lay def ci ci roue ministre de l'intérieur mais attends nit doo ko jëlee ba pare di ko fa xastal qu'on se dise la vérité Ousmane Sonko la ñu wax ne ko la toogal dafa war a toog xam nga toog noppi xam nga wax mënut a bari lépp jaar yoon dafa bari wax te ay wax mënut a bari lépp jaar yoon booy def da ngay def l'essentiel booy wax nga wax essentiel nga kuul quoi moom moo nit ñi ñii moomuñu nit ñi ñu wax leen ko quoi il faut ñu liggéey réew dañ koy liggéey Colobane dañoo a jóg. d'accord foofu ku leen ko wax xool leen ne leen ngeen fi war a jóg fii dañ koy defar. Mm-hmm. feneen ak feneen Kër Massar ak fépp dañu war a jóg mais dañ ko war a defar ba nga xam léegi ñu fa recensé ñi nga xam képp ku ñor indi sa carte indi sa nangam indi sa nangam organiser ko xam nga jox ko maire bi am na cantine nangam nga joxul nangam loo yor xam nga ñu organiser mm-hmm. ko ba mu baax ñu dem fa mm-hmm. ñu nekk fa di i magas di fay seen di fay location di fay et tout et mm-hmm. a bàyyi d'accord il di wax sénégalais yi dëgg tu vois. d'accord loolu la demee loolu am na solo alors fi ñuy jeexalee mooy. Mhm. tey gis nañu.